kon Macky Sall lu muy tiit Macky luy problème am ci gëm sa bopp c'est important démb dama am ku may waxtaanal kilifa bu mag mu ne ma euh, dafa am comme Macky Sall dafa gëm buxaaba bëgg ku gëm sëriñ dañ ko wax ne mais ki la war a wuutu ku xees la ku gàtt mais ma ne ma ne ma ne euh, bi ko wax ne ku xees ku gàtt la sonal na tooñ na mais pourtant Barthélemy dafa xees te dafa gàtt mais pourquoi mu yaakaar ne man la war a doon et admettons même que mu nekkoon man je crois il faut mu nekk nit ku jantal cest à il faut mu fair mu xam ne euh, lii ñu nekk liggéeyal suñu réew dong la man Bougane Gueye bu lépp doxal toog ci sama liggéey moo may gën a bu lépp nekkoon ni ma bëgg toog ci suma liggéey moom may gën bu lépp nekkoon li nga bëgg sa bureau Babacar doo fa génn mais parce que tout simplement on a remarqué que ñoom politiciens yi dañuy fooye réew fooye googu ñuy fooye réew mi moo waral coow lu bari li ngeen di dégg fan yi yëpp mu wan leen ne dara taxu leen jóg lu may seen intérêt bii bukki bii njuur bii sàmba bii maa ko war a moom bii fan fan la war a féete ci man la war a nekk waru fee nekk déet yow waroo cee jot rek ku ne gis na agression yi ni mu ci réew démb rek ku ne gis na li xew ci réew mi ci wàllu agression mu metti suñu xol ñun ñëpp kenn du ci wax dund gu seer kenn du ci wax en ah, kañ ni ciy waxee mooy génne xaalis di corrompre nit ñi fi mu nekk nii booy yi koo waxal mu ne la ngi bindu ji parce que yaakaar na ci quatre mi mille yi war na cee c'est désolant pour le Sénégal et